aca Alexis ñaaxu waaw dafa ëmmal ëmmal lan ëmmal doom jaawul doomi kan fay faaw faaw ah mënu mi kaay kaay eh déglul laa wax ah ko dala feex projet ëmbal déedéet waxuma dara hmm. déedéet man ko maa ngi koy soog a dégg mosoo ko dégg mal doon na foo xale jigéen fóon ko ak yooyu waxu la waxoon na am na gel bu bees daal waaye ëmb ay eh, waay teel la bul tudd gel waxal amul rek waa xaw ma si dara ah kan moo la yónni xaw ma si waaw moo la yónni waaw ñànku xam la laa bëgg nga xam ko ah, ndaayaan bàyyi boo demee sa tuuxi doona di ko ji ñànku dégg nga ñànku yi ngay wax nekku ci boo ne ñànku réew na mun naa tooñ mën la jukkoom la waaye ñànku reewandeem jëmale ko si ay jigéen bu nekkul mën lu mi sax mën na la sañ na ko waaw waaw waaw eh cësalaam la ajo waaye waaw baxi sinaw xan waaw joxinoo wi waaw du joxinoo laan joxinoo ñam waaw kay jëlal dooxi doona bi nga na ba si kër Moussa la maire nga bàyyi ko fa ne ko bàyyi keneen ne tooxi doonam du dugg këram. ah non. tooxi doonam xaalis moo si nekk. bëgguma xaalis man bëgguma xaalis te bul ma dugal looy jënd ma dégg nga. <laughs> affaire yi ne. ah wuy ma jël ma nii. ñaaw bi ne génnal nii ah. nga. bi ma ne lakk nga sa gan nag ah. eh eh bu bu bu albatikul albatikul albatikul ah dangaa ñëw sama kër jiñ sama doom ëmb ba ba dima kokk li moo tax ngay ree ah projet bi maanaam projet bi bu nekkee da nga see yaakaar xaalis doo si jëree dërëm demal nga ne ku la yónni papa ne du ñànku tey du ñànku ëllëg te du ko doon ginnaaw suba. dégg waaw projet bu taw pare. ah jox la taw. waaw demal ak sa taw demal ak sa taw. waaw jox la wu taw. ah ca jox la eh eh waaye demal la sa bopp noo def ba yëg def ko ba àcc acca ndaa yaan est-ce que lii géej gis nga ko est-ce que lii daa buy alhamdulilah ana ñangu ñangu ñangu daa daa daa fooy fu ñangu dugg xam nga ko bul jaatu fenn de waral ma ñangu ba gis ko ñangu xaw ma kañ la jëf-jëf lu bon ji naka jekk ma ne ko boo bàyyiwul ah, mandaa yàlla mi ngay ànd dina la dugal si musiba Njaay. waaw keneen. waaw. magam. maaleykum. la. waaw laay. maaleykum. ah. lan moo tax yow booy bu la àttee nga lànk ah. bu sant ngeen xeex ñu naan jàppal maaleykum ba mbaayil maaleykum ba lan mooy teeyam. station bu tàngee noppi. pourtant seeroon naa ko sax. ah waaw waaw. waaw waaw. loo ko seeralee. léegi laa namoo. bul ma nam ma namante wu ah waaw. lala. koy seet. ah ñànko. ah. ñànko. laa jur juruma ñànko. ah mun na yónnee. waaw dama leen yónnee loo fi dem loolu lay ok maa kumba daa toog kër bi ma toogee. waaw dama weet. waaw ba weetee. waaw na mu werante. Ah. <laughs> mu werante waaw waaw ah da ngaa ñëw pour werante ma ah, ma waaw an kaamu ñëw werenteeg Yankuba Numbe ah Yankuba ah. <laughs> Numbe dañuy nelaw dañuy nelaw oo oh, nga bu bu nelawee kañ lay yeew ah kañ lay yeew ça dépasse bu tëdd ah, doon ah, ah heure mooy mooy maanaam si leen réveil heure buñ ko bu sonnee rek dinañ jóg te bu moom réveil bi buñ ko réglé ban heure lay sonné mooy heure bu mu jot heure buñ ko réglé lay sonné ok werante maanaam ku ma mën werante boo la jógee seen kër ba fii nga werante ak ñoom dafa kaa xiifoo léegi booy werante ak moom looy ak moom ah yow boo ñëwoon suñu kër di sa papa ak kan sa papa dama naan ko ba ba ngay doon xale kenn daaw nopp ndax sa ñaawaay loolu laa doon wax sa ko sa papa comme golo

papa daa ñaaw nga bëgg a wax. sa papa. waaw taaru zéro. Ah. yow sa baay nu mel. sa papa. yow yow sa baay nu mel. sama papa. son papa. wuy ah. ma. comme dànge. waaw kay moo tax ma bëgg nga sa baay. papa. waaw ca demal. boole naa ah, sa baay. tuum dem a bakke ah dama na. gugu la gugu dooree ma jàpp sa. xàmmee baay. demal gi parkaan di ko fa fekk. coow jowul. acca te ay doo saali lii sol doo ko changé waa demal waa yàlla moo bëri ay modèle de xool bii mu génne yàlla xam naa day dem ba benn am jotu bind day tranché rek bàyyi. baal ma baal ah oh. waxal li ñu fi indi. Euh, Papa Guédé daa kaa bu ñu yëg moo ñu fi indi. ñànku laa dégg daa ëmbal. ah yëg na ko. ah yéen daal dem ah. eh, foo ko teg ah, yaa ay ay bëgg jigéen bokk ci ay bëgg-bëggam jigéen bokk bu fekkee ay complice ngeen wax leen ma ko. ndax yéen mënoo dara. xam nga lan moo gën a bon. Ah. àddina lu ci gën a bon. Ah. mooy nit koo xam ne ci àddinaam. li muy rêvé mooy tekki. tekki ñëw ba ci kanamam. mu deg nii tekki. jël élan. ba mu kàjjee tekki keroog la ko gëj kii moo iñaanee ndonoom ci boppam. mooy yow. te bàyyi woo ci xel. aw ba yow ko ëmbal. Ah. doo toog nga julli ñaari rakk yow leer na ma ni sa genre gii ak ñu mel ne yow mooy ñooñu nga xam ne buñ sëggee di julli yàlla ne leen foo leen nekkoon moon naa leen. waaw da di gëj a julli. ah gisoo sama jéggi. del julli. léegi nag comme lii am na. julli. nga ñaan yàlla yow lépp loo doon ñaan yàlla yàlla defal na la ko ci ëmb ñaan ko julli trois heures du matin ndax lii moom. Eh, eh, eh, bala ma forto waayo amul lu si ñaanee yàlla. ah doo dal ah. defal nànk rek tuddal yàlla ba pare awa yeggale kon tuddal yonent bi waaw ah, kon tuddal sa bopp yeggale tudduma d'accord léegi ëmb bi dafa am lu ci nekk te yow suñu nit nga bu lépp jàllee ñànku ki mu ëmbal nii papam daa teg xaalis bu baari ne bu ñànku nangoo ëmbal bi déglu leen ma dem leen papay xale bi jëm ngeen ne ko papay ñànku nee na bu doom ji dese dee mën lu mee fi ay eh. mën lu mee génn man papay ñànku baa ngeen ni bu ëmbal du ko am waa léegi ñàkk ëmbal bi ah? yaa ne ëmbalu ko kon ah. léegi kon mën nañ koo wax ne ñànk moo ëmbal xale bi. bu doom juree nanu woon ñu ngénte. mais bu ngeen ma mës a jox bi moo si mais liir boobu dina doy waar nag. Ah, na ba pare doomu ñànk judd ci rek eh. jàkkaarloog saas-faan yi. ah gémminu ñànk comme souterrain. <laughs> yàlla baax na moom kay kon nañ dem eggee ko loolu rek. Ah, loolu la woon d' accord incha allah. waaye yow ana Doucouré. baal moom gëj naa koo gis nag. ah xaaral ngeen a bàyyantee ci. maa ngi jégalu waaye moom nag nee ko mu dimbali boppam mi ngi mel ni wëtiir